mais xam nga xam nga gars yi dañu dañuy nekk ci benn réalité. dañu ni yéen da ngeen dooroon di wane sëñ Touba di wax ci sañ Touba. Mhm. xëy wëlbatiku di wax ci seen bopp. yow déjà xam nga sëriñ Touba am na ñetti tur yu bokkul. Hmm. sëriñ Touba laataa muy woote laataa muy créer Touba laataa muy wootee nu mu tuddoon. xaadima. noonu ni mu tuddee boppam du xaadim rasul la après du Cheikh Ahmadou Bamba woote dara ah, niñ ko niñ ko Cheikh Ahmadou Bamba mhm. Cheikh Ahmadou Bamba moom la tuddee bopp moom moom la tudd moom lañ ko tuddee waaw ñu dem ba mission bi ba mission bi ba mu jot ndigal ci rasulullah rasulullah feeñu ko ne fo bàyyi bul yamale taalibe yi ci jàng kese mhm. mais yar ci yitte mhm. yar leen ci yitte bul yem ci bul nekk sëriñu jàngalekat mais nekkal sëriñ boo dangay da ngay yare ci yitte. Mm-hmm. mooy engagement. Mm-hmm. tu vois murit mooy la volonté mooy nga jël jaam yi purifier leen yóbbu leen ci yàlla. Mm. foofu Touba en quelque sorte mooy texe texe. Mm-hmm. Touba mooy texe Touba mooy texe. Mm. léegi nag Cheikh Rafal moo ko tuddee sax sëriñ Touba sëriñ mooy ku lay womat di la yóbbu Touba ci texe. mooy sëriñu texe gi. <laughs> kon texe gi ci kaw suuf nga ko war a defee waruñu xaar ba yomal xiyaam pour doo ko texe. si nga koy préparé. non da nga ko war a am sax da ko war a assuré. rabbana atina fi dunya xasanatan wa fil axirati xasanatan wa qina yàlla texe bi yàlla ñaar yëpp la koy fas dafa ne yàlla mais mu texe ci kaw suuf mais mu texe fa la jëm te même kii boobu moom la. Ehm, salaatul fatiha dina lay la allahuma salli ala sayyidina muhammadin alfaatihi lima uxlika walxaatimi lima sabaqa naasiril xaq bil xaq walhaadi ila siraatika almustaqim cheikh mu ne walhaadi ila siraatika almustaqim yow yaa ma jéggale siraat te cheikh ba muy wax loolu mi ngi ci kaw suuf kon siraat xanaa daa nekk ci kaw suuf donc la faculté philosophie bi doo ko exclure hmm. dafa yàlla dafa yàlla il est le présent il est l'omnipotent l'omniprésent déggoo ñu ne la soufi dañ naan la le soufi c'est le fils du moment. c'est que fils du moment waxtu. Hmm. doomu waxtu bi la quoi. Mm-hmm. démb weesu na suba ñëwagul wóorul. Hmm. loo mën a def tey. bul perdre sa temps parce que xam nga jamonoy Covid bi j'ai vu un milliardaire boo xamante ne dafa dee doom ji toog di jooy ñu ne ko looy jooy mu ne sama baay ak milliards yu ma am yëpp. oxygène moo ko manqué benn suuf ak milliards yëpp mënoo ci jënd benn kii wa kon ñun bu ñu yàlla doon fayeeku ko fuñ jëm. te ci oxygène bi ñuy nooyi ba at yi ñu moo tax yàlla li doomu aadama soxla nga xamante ni mënta ñàkk dénk ko jaam parce que da xam ne jaam bu meree moroomu jaamam xañ ko mais ba léegi tontu goo question bi ñu leen di pourquoi euh, est-ce que seen manque de communication parce que léegi ngeen commencé di di génn déjà ñun suñu kër yi rek boo fa nekkee di philosophé ñu ñu ber la teg la dof waaw mais c'est la même chose dañ ne vous êtes incompris mais c'est moo bi ñëw na c'est vous êtes incompris loolu jafe-jafe biir Touba bañ yàlla yàlla yi leen di tere dëkk bi nangam nangam. man moom personnellement man moom mosuma am problème fenn fu ma dem ci àdduna man te je fais partout dans le monde parce que du ma wax ak nit ki lu fu mu toll. <laughs> ku tolluwaayam. man man fu fi mu toll foofu ngay waxee ak moom dimension bi mu toll. man je dérange personne. Mm-hmm. te du ma répondre question boo xamante ni recevoir ma demande bi. Hmm. parce que yàlla moo ne bu leen ma jaay ci marché yi. Hmm. mooy bu leen ma waxtaanee fuñ ma laajul. dëgg la. boo ko defee na ngay noppalu. mooy comme comme li ñu doon wax fii dem rek euh, murid yi dañuy xaar nga ñëw. mais du ñu ñëw di la imposer du ñu agressé kenn du ñu forcer kenn. liberté de culte. liberté de culte mais nag am nañ sañ-sañu bu ñu wéetee seen biir wax li leen ñor. waxtaan suñu waxtaan peut loolu mooy déranger. waxtaan suñu waxtaan non xam nga le problème mooy. des fois doomu aadama day bëgg ni muy comporté woo ñëpp di comporté woo. panse pensée unique pensée unique. baaxul tey mhm. créer sax su developpement mooy li ñu tubaab bi bëggal. est-ce que yaa ngi dégg wax ji tey jii moi j'ai fait euh, toog naa Italie sama laboratoire di ñëw am benn juriste ñëw ma koy ñëwaat ñuy waxtaanee ci yàgg xam nga lu ma wax bàyyil ñaw bi nga dem wax ak jaami juriste de bàyyil ñaw yi nga dem wax ak jaami. Mhm. parce pour moi damay perdre temps toog di liggéey pour am xaalis quoi. man liggéey bi ma war a def mooy dem wax ji ak di wax di wax di wax man euh, tarbier naa un professeur euh, philosophie buy liggéey au niveau de l'université de Vatican de Rome da nga ko tarbiya waaw te du woon jullit waaw indi nga ko ci diine lisaan man suma soxna bi ma divorcé philosophie la def euh, euh, recherche philosophique à l'université de Venise moo njëkk a traduire Masaalikul Jinaan en italien bind ko yaa ko dugal ci diine maa ko tuubal maa ko tarbiya dugal ko ci yoon wi ah, am na photo yoo xamante ne boobu masaalikul naan pareegul mi ngi nekk à chantier ñëw ànd ak suñu doom j'ai des photos yi de ci ñu la koy maa ngi koy saluer de passage tu vois Aïda laa ko tuddee parce que sa miss sama am tante bu tudd Aïda et puis théâtre bàyyi Aïda Souka ma leen gën a moo tax nga tuddee ko <laughs> <laughs> <laughs>